jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk en not bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek kenn ku nekk euh, sa waay maamaat li di kontaan teg mbégte bu baax nag comme ni ma ko far def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam tey nag ki may dala tey mu di seen njël benn émission ci biir site bi ñu fas yéene waxtaan ci xam-xam mu di sëriñ Ousmane. te nag xam naa ko déglu di nga dégg xam-xam donte nag mën nga ne ci jëmm ji ni nga koy gisee ndaw la waaye la mu làmboo suñu borom def na ci moom lii di xam-xam bu am solo dinañ waxtaan ci ñaan ak paj waaye duñ fa jógee am na lu mu mi loo xamante ni lu ñu war a waxtaane la xam naa ko déglu tey nga dégg révélation am solo waaye am na loo xam ne bëgg na ko waxaat ci làmb ji nga xam ne jot na fee jaar Serigne Ousmane laata may def leen damay bàyyi nga nuyoo mbokk askan wi bisimilah alhaaj sin sax bisimilah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli mhm. ginnaaw biñ julee ci yonent sangub sang yi di ñaan asiyax Muhammad al Muntaxa mu yàgg fi téwér loolu sëriñ am ni moodu mel ne naxnu kazalika mhm. alhaaji cheikh bisimilah tarkal la jërëjëf sëriñ Ousmane ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw suñu set yooyu tànd ak daal ñuy kontaan bu baax acca comme ni mu koy defee saa su nekk ni ma ko waxee sama biir intro loolu lañ fas yéenee tàqar ñi waxtaane ko ñi taata mën na jëriñu waaye dama bëgg ñu jaar ci bunt bi dañ koy def ndax sa seet maa ngi dégg ñu koy waxtaane njëriñ li ñuul ma ci seet bu solo boobu nga xam ne yaa ngi koy def cheikh man yàlla sama borom damaa bind noo xamante ni man damaa teel a jóge ci daara ji bi ma jógee ci daara ji alxuraan na dama koo teel a mën mhm, bi ma jógee ci daara ji sama maam boo fekk na mi ngi dund ba am téeméeri at ak ñeent tarkalla mhm. sama maam dafa guddoon fan mhm, léegi ci laa daan nekk daan ko bësal dafa ras a ci laa jékki-jékki dond ci moom seet man bu ma neexee rek doomu xaadama yu foto loxoom bi yónni ma ko moo ko xaru dajjoj macha allah su ma neexee tiim doomu xaadama bi di wax mhm. su ma neexee seet la ci suuf su ma neexee seetal la ci ndox su ma neexe seetal la ci ilmun nujoom allah ma neexee seetal la ci ilmun falak mhm. lu ma neex ci man lay dépendre lu ma neex su ma lu ma neex rek point bu ma neex ci laa lay seetalee waaw loolu nag ci maam lañ ko doon mësumaa toog ci sëriñ ci àddina tarkal na ko jàngal ma seet bépp sëriñ boo xamante ni nee na toog ci moom na ko ma seet mhm. loolu boo ko ay fen ndeysaan wallaay la maam laa ko jëlee macha allah jërëjëf nee naa leen la ca euh, maam seet a koy doon te loo ci doon na rek dina dëgër donte boole na ci gëstu ak jàng kooku mooy Serigne Ousmane aca sëñ Ousmane damay ñëw ci feebar yi bari nañ waaye naam mënuñoo waxtaan ba pare te dugaluñ ci lii di tànk yu metti mën naa ne biir yu metti lii il faut ñu waxtaan ci ak yaram yu metti suñu Cheikh man yàlla sama borom damaa teel dimbale loo xamante ni nawet bi ni danaa ci jàllale benn misaal na suñ tubaab dañuy xaakum jàpp li nasiihati sama laabire mhm. lakkum ñeel leen fatar bu xoo danaan tanaw duniyaa ci àddina gii ñu nekk mhm. wa uxraa ak àllaaxira maa xawmin ànd ak ay nit af la xoo ñooñ te xenan mhm. loolu la suñ tubaab wax nee na wax ji képp koo xamante ni topp nga ko nga jëfe ko waaw doo jàkkaarloog sama borom mukk di sëgg wala ndeysaan Euh, damay jàllale benn message muy feebar yi nga xamante ne day dal doomu xaal lu mel ay paralysé nit lu mu paralysé gaare gaare gaar lu mu gaare bu ñëwee fii mhm. wa rabbul kaxbati mu sarraf deret ji ngay deret ngay gis waaw karita mali gi su ma ko boolee ba liggéey ci li ma ciy liggéey waaw wallahi asim sunguf si su ma ko boolee karita mali ak deret ba jox ko mu def ko ci tànk yi bu toogee quinze jours lii mhm. Sëriñ di séddal yow man toogee quinze jours jugut waaw bu ma am dara ndeysaan te feebaru ndigg yu métti dafa dugg ci réew mi siñ seex wala ndeysaan dama koy laabiri nit ñi te yàpp feebaru ndigg lu métti li képp ko amul kaaraange da nga wuyu ji sa borom ma ko làq-làqal ak nëbb nëbbal dëgg ma gisee dama koy wax rek te yàlla tax mm-hmm, mm-hmm. waaw wala ndeysaan rek te yàlla tax waaw te xam ni bu ko ci jugul wala nga am ndaw loo xamante wala nga am doom nañ xool loolu balaa bu fi sa borom wàcc la waaye lu mm-hmm. waaye nag dina iskante ñu bare ba ndaw lu ci amul kaaraange da nga wuyu ji barke alquran ci nawet bi la. waaw nawet bi la àndaale. ay nawet bi li mu nar dëxa ñëw. yaram yu métti nawet bi nag ci nawet bi la nawet bi ni mu wàccaale ren la. waaw moo moo moo demee noonu. aywaay jàppale ci moo tax suñ muntaxaa keroog dafa am damaa kontaan ci suñ muntaxaa. Mhm. keroog suñ tubaa téeméeri atam dañ ko doon feetu. ca njaarim suñ mun taxaa digle ko waaw loolu ci boobu noon ci laay dog di xam tëdd naa bëgg am lu ma sàmbaroon wan ci nawet boo xam li li fi suñ mun taxaa def allahu akbar ndax man damaa doon nit koo xam ñeme naa téye sama loxo wat ci yàlla na man musuma kon man mm. lépp luy nit def dama koy xam suñ mun taxaa lii mu doon waaji def nii am na kenn koo xam ne sama benn ak moo woo ko na ko suñ Muntaxa wallaahi alxasim dina fi organiser am lu mu fi organiser téeméer at suñ Tuubaa dina ko fi organiser mhm. bi mu amee man la jekki-jekki woo wax ma ko ma mhm. ko nag du dara loolu saa bara moom mooy jekki-jekki di may dama di ndaw bu ma kenn gis di ma xeeb mhm. suñ Tuubaa mottoon juróom fukki kilo waaw Serigne Touba. Mhm. ay maam Cheikh Anta ak ñëpp bi ñu ñëwee dañoo topp ci ginnaaw. Mhm. te bu neexoon rek dañ koy xeeb ci mhm. da ngay sa musiba nañ jàll ci leen seex. Ah, yaram yu métti it ñaa ngi koy jàmbat saa su nekk de. nee naa la seex ndig yu métteeg. yaram yu métteeg tànk yu ruux ak. karitam mali laay jël ak deret. waaw yoru ma nag lu leer. kuy wër lu leer demal ci daara yi daara yi ñoom ñooy liggéey lu leer. man bi ginnaaw ba damaa dem génn ji man dem naa dem naa Nigeria. Mhm. dem naa Bénin. waaw Bénin liggéey naa fa juróom-ñeenti nawet. barke alxuraani karim sëñ Cheikh. macha allah waaw nawet. Mhm. bari na sëriñ soo xamante ne ñu ngi nekk fii naan dem nañ Bénin barke sëñ Tuubaa dañuy fen <clears throat> beneen gi nga xamante ni seex bari na sëriñ su bari yoo xamante mhm. mhm. ni seex wallaahi ndeysaan i client mhm. dañ leen ko pare bu ko ñoom sëriñ si moo seet ni ko sëriñ sama jëmu ju xeebu ji la macha allah seet man aw ma ci morom sëñ Cheikh. waaw wallaahi alazim ba léegi nii sëriñ si wax naan dem nañ fa maa waatal ci màggaayu yàlla. Mhm. billaahi lasi laa ilaaha xayruhu am na ci sëriñ soo xam bu fekkee dem nañ bene. Mhm. li sëriñ Tuubaa di séddale ma xam man Ousmane yàlla bu ma ci am. tarkalla. Mhm. dama di ndaw tab gaaw maa waat nag. waaw bu may waat nag lu leer moo may waat loo. lu wér lu leer nag moo may aja kon ñëwal ma ci tawat feebar néew kàttan nga xam ne mën ñoo yàgg ci nga pot bu ndaw bi ngay xeeb ni sëñ Cheikh waaw allahu akbar tuttu bari benn fan nga koy diw ngoog de boo ci jëlee sa awra nga ciy diw sa bopp awra bi nga ciy diw mm-hmm. boo ko ci diw boo paree nga daal koy takk nga daal di jël mbuus daal koy takk waaw boo ko takkee bu sa sama borom insha allahu rabbi mm-hmm. bu bu une heure de temps yi nga tekki ko waaw wallaay ndeysaan naa sim seex bu une heure temps yi jotee ba nga tekki ko barkallah wallaay asim ni ko gisee nu tuutee ni boo ko tefee mm. sa awra yi waaw boo sëyul 45 minutes yàlla bu ma gisanteeg Serigne Touba Kër Yomar. tarkalla waaw dafa dëgër mhm. de. dafa doxul ci wàllum néew kattan kese day sa awara la yeb sa kaw lal. jërëjëf Faye wallaahi la xasim. tarkalla mu ngoog de boo ko yoree moom. Mhm. jigéen koo tasel dañ lay wakkante macha allah koo tasel ñu naa leen numéro mit du naqaree jot ndax dañ koy af suufu barre d'écran bi mu leer naañ képp ku ko ci contacté dina jëflanteeg yow ba sa xol sedd guy aca ñuul ma ci nopp sëriñ bu ma ci laaj nag su waxee da nga naan gongo waaye noob jàppewu ma ko lu yomb de. noob sëriñ su baree bari damay dégg ñi naan ay 24 heures rek ay ñetti fan ak nangam ak nangam di wax. Mhm. ay wax ji man see xam lu ma gën a bañ ci àddina. waaw noob dafa naqare ba man damaa naqadareet. waaw am naa fulla joo ne nag seex. Mhm. man bu ma la man boo ma envoyé ni niñ ma gisee ni ma toogee ni sama oyof gi man boo ma envoyé message. ma mhm. tontu la nga tontu ma bàyyi ma ci biir mu duggaate ma la fekkee dama lay bloqué bombardé laa lay def tarkalla du ma ñàkkuma kilifa de yoruma liggéey bi sa lay tool laa yor damay damay liggéey sama liggéey bi mm-hmm. ñaan gi nag dama ko ñëw ngir dimbali te yàlla tax naxaate gi bëri na mm-hmm. man noo boo ñëwee dama naan la wutal deret nangam deret nangam ji su ma ko tuuree ba togg ko nga jox ma tur bi nga tur waaj su ma ko mm-hmm. toggee ba def ci li ma ciy def buñ toogee juróom-ñaari waxtu. waaw te nopp gi jàppul. Mhm. sa sa alal jooju noonu bu ma ko lekkee yàlla na réese ji ci biir bàmmeel. tey waaw ku wóorul wax lu wër nga wax. juróom-ñaari waxtu laa waaw su ma jëlee dara ji toog ko bati ko def. ma ci def ak tur wi. waaw gi boo ma waatee te kontaanoo. waaw. alal jooju nag bu ma ko lekkee sama biir bii nii waaw barke alquraan karim yàlla na gonfale la xasam du ma lekk alal doomu aadama man damaa génn man ku wedde damaa bëgg nga laaj génn fan ma ca Cincinnati wala ndeysaan man man li ñuy daj am ñoo ni seex comme tey jii ni ma mën a jékki-jékki tëdd sama nekk sama kër gi mhm. ay ma upp vingt quatre mhm. doomu aadama di takkale di def nii xamu fan la jëlee alal xamu ba xam da koo sàcc xamoo ba xam da koo lekk lu a sóoraale xamoo ba xam mu ko jëlee mu jox ba léegi mu ñëw nga lekk ko ndeysaan ay nan xalaat guddi gi njëkk ci bàmmeel mm, mm, lu jar a moo tax sama borom mm. dañu am ci ñun dañu ginnaaw ñun liggéey lu ñuy gis waaw ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa Mbàkke te yàlla te lekk alal baaxul de sëriñ su baree bare ñu naan dañoo fay fayunu de dañoo lekk lekk alalu jàmm nangootunoo génn ci internet bi nit ñi di leen gis kenn hmm. ci fayut bu ma génnaatee dinaa tudd ay tur nag tarkal la bu ma génnaat dinaa tudd ay tur waaw avant nga may jot nag sonn nga trop hmm. nekkuma nag fu nekk lay gindi lambar lambari ndangam nee naa damaa yor samay tool damay bay hmm. defuma ko liggéey képp koo xamante dangaa jékki-jékki wooma waaw wala te waxoo farte damay jékki-jékki kuppi la tarkalla ñi am na ñu bari dañ moo naam sëñ bi da ngaa naqadare te nangam na boo yore lu wér di nga naqadare sëñ seex walaay ndeysaan toog fa di ra ku ma woon na naan da ngay ràcc waxtaan dinaa lu bon ràcc mooy waxtaan damay liggéey sama mbir lépp teg tegg la doon mu daanu jàll ci leneen jëf waay bisimilah jërëjëf jërëjëf sëñ Ousmane aca kon mu ngoog ñu dox ba léegi wéylu yaatal jàll ci beneen ponk dañ ñëw ci kaaraange jamono léegi nag ku ci amul kaaraange foo yaakaar ne mën nga wuti ko ñëwal mi sa kaaraange bi waaw yaa ngi gis ndombay ni ko gisee mu weex ni waaw ah, daa weex de moom bu la mhm. boo tëddee bëgg da nga koy gént tarkallah boo xëyee suba waaw ndomba gi dana la wax na la tur nangam def naa la nangam nangam ndomba gi est que waaw ndomba gi boo ko takkee mhm. ci xam-xam da nga të mhm. doo dugg koso waaw te képp ku la liggéey ci àddina day faatu macha allah te képp ku la yiinwul jàmm du am jàmm waaw jaayal dorog ndomba gi boo ko yoree jaayal dorog tarkallah ndomba gi laax bu man mi am man mi laax seex waaw xam nga man li tax man ni xam-xam loo ko jëndee jar na ko gis nga hmm. ndomba gi waaw yéeg naa ci ay avion yu avion man seex damaa ragal avion ndeysaan barke maam Cheikh Ibrahima Fall mi ma yaakaar addina ak ilaaxira damaa ragal avion hmm. damaa yéeg a yéeg a yéeg a avion ba ragal avion ndomba yi fu nekk yóbbu naa ko fi ci addina ndeysaan moo tax man yooyu nekk man sëriñ si dañoo war a way man du ma neexal client du woo client mm. am na ci client yoo xamante ba tey nii ma waxee yow nii mm. war nañ maa yónnee ab xaalis te ndomb gi laa la joxoon ñu jekki-jekki war ma wala ndeysaan waaye ndomb gi bu leen jigee mm. la xasim yàlla bu ma gisante waat ak sama waajur mm-hmm. dañuy def lu métti dana leen dal ndomb gi am na ci client yoo xamante ni Cheikh da nga leen di bëgg a dimbali ngir te yaata waaye dëgg nañ ko waxtaan waaw xaqun dëgg bi laa sakkin di sikk sàkk fu mën sa dëq xaqu dëggal mm-hmm. naa la am na alxulaa dëgg buñ ko di sikk sàkk wala ñuy fen nañ wax dëgg te dee mhm. am na ci client yoo xamante ni fen rek la ñuy def duñ wax dëgg dañ lay wax loo xamante ni man man yàlla teel dimbal moo tax xam-xam rek a seex mm-hmm. si seex waaw xam-xam rek a man nag may woo di joyt naan billaay man de jaar naa fu nekk damay xam da fen ma la ci biir mm-hmm. man maa ci jékki-jékki bëgg a ràcc waxtaane bëgg a dindi moo tax wax ak waaye xam naa da fen <laughs> wallaahi mm-hmm. la alxasim loolu yàlla buur bi dama koy xamal bu baax a baax macha allah client ñi waxal baax def ci man attention tarkalla yéen lañ yaakaar. waaw nañ def timante attention. jërëjëf Faye acca kon mu ngoog ñu jàll ci beneen ponk damay ñëw ci samp waaye du ma ne samp samp place bi bëgg naa ñu waxtaanee. waaw sëñ nga gis ni man ma dara lu yoru ma dara lu leer. waaw bopp bi nga gis nii bu ma ko tekkee sa place di lang nii bu xel muy dem di di dem ngelaw di ko ëpp tarkalla dugg ak génn bi mhm. lu mu war a àndal suuraay lu bu ko di nga dugg mbay faal damay mhm. tudd tur man lu may def damay tudd tur seede laa ci bëgg la mhm. waaw naa mm. jàll benn misaal Mor Talla Sandaga. Mm. Mor Talla Sandaga. waaw Mor Talla Sandaga na ci eh, na jug ci boppam. tarkal la Mor Talla Sandaga. waaw na jug ci boppam baax a baax a baax. Mm. wallaahi la xam Sandaga gis naa fa lu bari bari loo xam ne dafay yàq Sandaga day tàkk xam day tàkk léegi. coow li fi am nii. waaye ci jugul man damay man su ma génnee damay wax tàkk waay. Sandaga day tàkk sin seex. ëpp naa kaaraange ci boppam moo fa manqué. waaw lii nekkul samp kese de. boo ko tegee ci place. waaw ñi ñuy toon wala ab sàcc buñ ko sàccee day mel ni comme ça caméra day mel sa yaram mooy jékki-jékkee sa jaani biir daw nga xam ne am na lu xew ci place bi lii nga gis nii mhm. waaw du ma ci wax sax tarkal la kon wallaahi alxasim jërëjëf faay kon mu ngoog leer na nañ acca waaye dañu ñëw ci faatu faatu yi ak moodu moodu yi mu di ñi nga xam ne dañoo bëgg papier wàllu passeport visa séjour yi yëpp mënta ñàkk ndax euh, saa su nekk dinañ ci yaatal ñu ma foofu waaw wàllum comme foofu nga waxee Cheikh dama cee sawar tontu mhm. man nag képp koo te ni bëgg ñu liggéey ma yow waaw boo ma woowee naan ma dem naa ci sëriñ nangam waaw gisuma nangam nangam rek boleke laa lay def mhm. bu ma la fekkee dama lay bombardé bu ma la fekkee ci téléphone ba dama lay bombardé boo ni maa dama laa boole dem naa ci sëriñ bu nekk man lijjanti ma loolu man sama bopp laay liggéey mhm. Mhm. man daal ñeme naa jël sama loxo bi sin seex dóor waaw wat ci la na lay ne la billaahi lasi laa ilaha xayruhu sin seex ñeme naa wat ci yàlla na képp koo xamante ni jox na ma alalam sin seex ma lekk ko mu dugg balaa moo rees. waaw yàlla na rees ji ci biir bàmmeel siñ kon man damaa naqadre ba xam bu may defal doomu xaara dafay nekk loo xamante lu ma garante ma garante la mhm, te bu mhm. ma la seetaree ba ni la këyit bi da ko war a am wala nanga ma ne lépp lu ma la wax ci seet bindal téere te xam ni dee moo koy dindi wala ndeysaan wàllum këyit yi nga xamante ni moodu moodu yi ñu lu nekk ñu ko ciy daj waaw wallaahi la xasi mi ci fonkattéere mhm. laa koy liggéey wala boo demee ci ambassade ba waaw wala nga ñaani ji wala nit ki la way naan day dof dof bu ma bu ma xamee turam tànkam bii waaw barki sëñ Tuubaa Mbàkke lu métti koy da te jàmm jóob waaw jàmm jóob moom moo mën a dindi tànk bi jàmm jóob ginnaaw man sama jëmm ji waaw jàmm jóob mooy dindi tànk bi la ilaha illallah xam-xam yaa jëf waay bu buñ ma gis ma toog nii rek. ñu mm. jàpp ne damaa tiim dañ maa tiim di wax li may wax ni waaw dafa am fu leer fu ma ko teg. tarkalla dama koo teg ci xam-xam am fu ma ko teg ngir bëgg a dimbali jaam ñi. man bu ma demee ba li ma yónni nekkutu fi. Mm. damay wax sama aqulahi taala seex dégg dafa gaaw. wallaay ndeysaan seex dégg dafa gaaw. waaw wow dee dee damay génn. Mm. te bu ma kenn ñaan ñaanloo dara nekkutu fi. waaw wala alxase bu ma demee ba lii ma yónni nekkatu fi yàlla sàmbar jël ko ma génn bu ma kenn ñaan waaw fu la jooje laa am jërëjëf nay leer mu ngoog acca sëñ Ousmane nag mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg lii di borom kër mu jafe leen waaye ñi xam ne bëgg nañ soxna it mu jafe ak wàllum am doom man wàllum am doom siñ seex li ma ciy liggéey yomb na waaw wàllum am doom boo ñëwee dafa am loo xamante ni yonent yàlla Suleymaan kër bi mu bëggee doom bi sa borom tegtal boobu noonu sa borom jox na ma ko mhm. tegtal boobu noonu siñ seex <laughs> tarkal la waaw am na ñu bari ñoo xamante ne dañ may dañuy bokkaale ñi ñiy bokkaale nañ ko bàyyi dañ naa giñ di ma tam dëmm wala yu mel noonu. waaw barke maam Cheikh Ibrahima ma ko. macha allah secret am doom. Mhm. bu mhm. a nga naan ko ba yàgg sa sa yéen ñaar. waaw weer wu njëkkee bu bu bu ngeen bu weer wu njëkkee boo ci hôpital tase. waaw loolu secret. man day yomb xamal na ma ko. tarkal la wàllum am doom ko wallaahi asim weer laa la may yàgg sa kër ngeen def tase waaw waaye ngay dem ci sëriñ dañ la jox liñ la war a jox nga naan waaw waaye ngay dem ci sëriñ ñu naan rabal a jàpp ak jin nekk nangam ak nangam hmm. keroog fii laa dégg ab benn sëriñ mu jékki-jékki toog di wax waaw te seex xanaa xamul seen seex waaw wallaahi lancim yi yéen war ngeen a xool ñi ngeen di indi seen site bu baax a baax war ngeen ko xoolaat waaw fii de dañuy segg moom fe ngeen di jékki-jékki gis koo xamante day sax sikkin mm. toog fee nangam nangam am na ci ñu bari ñoo xamante ne wallaahi lancim ay ay mécanicien lañu woon tarkal la sëriñ <laughs> non fii déet ëpp daa wax fi nekk nag seen seex aca kon mu ngoog jërëjëf sëñ euh, Ousmane kon am na solo waaye ñu bëgg kii borom kër kii waxoo ci dama ni wàll ñi nga xamante ni bàyyi jigéen ñi bëgg borom kër. jigéen ñi léegi ñu ci baree baree baree baree lesbienne dana leen gënal ay borom kër ay lesbienne lañ. am na ci jigéen ñu bari ñoo xamante ne ay lesbienne lañ. Hmm. lesbienne nu muy bëggee borom kër. ah doy na waar feebar bu leen dal la hmm. phénomène la bu leen dal. Hmm. Macky Sall moo ko fi bàyyi woon. ay góor jigéen yi gis yëpp Macky Sall ko fi daganal. li ma gën a métti ñu bëgg a ñëw bëgg a sippi lépp Ousmane Sonko. pale li ma far def def naa man dama yolleexu ndëkk naan kenn du ma gis ma jekk ji dugg def li may def def ko daal di génnaat nañ bàyyi Ousmane Sonko mi waaw lii fi xew ñi yëpp ci wàllum jigéen ñi yëpp Macky Sall leen ko yóbbee daganal na fi góor dooma xaj jim doon daganal na fi góor jigéen loo xalaat ëpp naa wax mm. barke maam mm. Mm. Seex waaw mm-hmm. Seex wallaahi la xasim damaa naqa deret man damay wax mm-hmm. nit ñi nekk fi di nëbb nëbbalaka làq-làq nekk ma ci Ousmane Macky Sall def na li muy def yàq réew mi Macky Sall moo yàq réew mi ak Abdoulaye Wade ñoo yàq réew mi Abdoulaye Wade yàq réew mi ne def nekk fi di jaay nit ñi ak yeewte seex ñun du ñuy ndaw yi kenn du ñuy gone kenn wallaay ndeysaan wallaay lancim lu bëree bëri dañ koy xam bàyyi noonu ci biir mhm. Abdoulaye Wade mooy yàq réew mi ak Macky Sall ñi dañoo doon ay nafeq yoo xamante ni duñ mhm. wax duñ wax li xew ci réew mi xaw xam li xew lépp nangu ñu cee wax waaw lan nga gis ci réew mi fi mu ne nii ñu jeexale ci actualité lan nga gis ci réew mi fi mu bëgg ñu bàyyi ko moog Bassirou Diomaye Faye waaw ñu liggéey ah, kay gis naa ko mu def ay audit mhm. waaye Ousmane Sonko tamit mere naa ko benn côté ah. sama xarit la nag waaye mere naa ko ah, lu xew Euh, Moustapha Gueye DC. Mhm. ca Njaarim gën dëkk. fa laa dëkk. Mhm. Moustapha Gueye defalu ma dara. man teraanga dama ko teel a am. Mhm. man teel dama teel am teraanga teela a yal sama samay tollaar di bay di liggéey di daan sama doole. kon ñaan wàllum ñaan yàlla bu ma ci duggee dama ci bëgg dimbali ngir dimbali doomu aadama yi. waaw waaye paa yi nekk ci internet bi sax yor seen sikki nii. di naxaate. waaw waaye nit ñi yéene ko seex. jàpp nañ daal boo yoru sikkin bu weex. rek mënoo leen a nax. ñu gis sëñ bi ñu gis sëñ Ousmane toog rek xam ne ndaw la duñ la duñ wax say wax sax il faut que ñu jékkee waaye loolu àdduna nag fi la baax fi lañ fi ko fi la. waaw bi sax nii dañ ko xeeboon yonent bi ay mbokk ma ko njëkk a xeex suñ Tuubaa ay mbokk ma ko njëkk a xeex. yonent yàlla Yuusufa nox na kasaalika. Mhm. yàlla lu mu wax lu ma bind ku ma ci gënal. waaw bi. waaw dañoo xeeb yonent fi mu ne nii. Mhm. kon damaa bëgg euh, Ousmane Sonko Moustapha Guèye mais. waaw wàcce na ko. te Moustapha Gueye am na ci ñoo xamante ne ay maire la ñëw nekk ci kër gi nekk nekk ñoo xamante am na ci ñoo maire yoo xamante seen doom yi mhm. dañ leen ngir yàlla te yàlla tax lekk am na ci ñoo xamante boo leen dee audit na baax a baax baax ndax kenn du am na ci jàmm yoo kenn du tas seen yaakaar ndeysaan loolu baaxul da nga mhm. di am na ñoo xam bu leen topp ba mu ñoo baree ba day fayantoo fayantoo wut waaye Moustapha Gueye dafa nekk nit koo xamante ku baax dafa dimbali suñ man koñ njaarim fu ma dëkk waaw Moustapha dimbali na fa loo xamante ni ñetti téeméeri ñetti téeméeri fukki nit mhm. ñoo xamante ni man samay mbokk lañ xam naa leen Moustapha Gueye DC moo leen dimbali mhm. Moustapha Gueye DC laa ñetti téeméer nangam ko ak ku ci mel ni sëñ Abdou Karim waaw sëñ Abdou Karim mi nga xamante ni moom laan àndal Baye Karim mhm. ku ñuy wax Baye Karim noonu tamit dimbali ay waay ko ak ku ci mel bari ñoo xam ne dañoo topp Moustapha Gueye di dimbali ay nit ay néew gi doole. waaw Ousmane Sonko waroon naa xam buy audit wut te jékki-jékki di bombardé. Hmm. moom nag raw xaanam dafay doon safara. xam nga safara moom bu ñuy xas bay boyal rek day day ñëw rek. waaw li muy hmm. daal mi daal gis naa ci daal seex. waaw ak li ma benn message bi may jàlle. waaw xale yi aw gaal nañ ko bàyyi. déet ah. xale yi aw gaal yi. Ah. ko bàyyi. accident bu métti na di nga ko gis léegi. kooku pexe nooy def nag. déggoo li ma solution am na. waaw yow sa yow sëñ Cheikh yow rawxaan moo tax keroog dama xaj maa ngi dégg benn sëriñ toog fee di wax naan ay xilmu nujoom. ma jékki jekk woo ko na ko lan mooy xilmu nujoom mu ne ma mu ne mu ne ma xaw ma. Mm-hmm. mu ne ma xil xaw xaw. <laughs> waaw wallaahi naa si xaw ma sax lu xilmu nujoom. Mm-hmm. loolu damaa métti si sëñ Cheikh. sëriñ su mag si nekk ci internet bi yor seen kaale toog di fen di duul di dajara rek. waay de tooy sëñ Cheikh amul déet yow da baax. parce que yow sa laabiir gi moo tax lu waay wax nga ni déet amul déet hmm. sëriñ su mag seen fen gin fi nekkee ak duul gin fi nekkee nan ko bàyyi tey liggéeyloo nit ñi hmm. oh, keroog dama xaj fii laa tarkal la mu ngoog barke Serigne Touba Sëriñ Seex keroog fii dama pe kenn keroog ab benn meer fii moo hmm. non man de damaa damaa gis ab benn ku jigéen man de damaa ma ku jigéen la mu woo ma li ma gën a métti alalu jigéen ñi ñuy lekk buñ ko bàyyiwul waaw alalu jigéen ñi ñuy lekk buñ ko bàyyiwul mm-hmm. mu ci mu daan wa daan bi daan benn sëriñ boo xam ne dama koo jékki-jékki daa koy woo mu daa ko jox cinq millions su ma koy du ma jot mm-hmm. xam naa sëriñ bi bu neexee ma tudd tur bi. yow jaru ko dawuma ci dara yow yaa ci am looy daw waaye man dawuma ci dara. seex hmm, da nga suturaal rek. ay doo ma xaj lañ ngaan suturaal booy suturaal da nga suturaal doo ma xaj. Hmm. ñu bàyyi li ñuy def. acca lamb wax lan nga ci gis. waa kër Tafatine sëriñ waa kër Tafatine réewande doo nga leen jàpp danoo réew. man lii leen dal teguma leen ko. la bàllagee nanga nga tu baax a baax. Mm-hmm. njaaytin woo ma ñu bare bari woo di ma menacé waaw bu ñu gisee jëmm ji il faut ñu lay ñu lay menacé ak nangam di wax. Mm-hmm. ma ne ko li leen métti tegu ma ko da koy daan da koy daan da koy daan sa waaye da koo ragal da koo ragal da koo ragal bu leen wax wax leen ak moom. Tafatin yàq deru bawal lu muy ragal ci Balla Gaye. Mm-hmm. Tafatin lan lay ragal ci Balla woo ma dooy ma xaj jëm doon. non Cheikh. Cheikh Cheikh. Cheikh walaay laa si baax na fa lillahi alhamdu daal. tarkalla fa lillahi baax na baax na. mu ngi doon lan nga gis ci réew mi laata ñuy tàggatoo. réew mi daal gis nañ ci jàmm di ñaan Cheikh Mouhamadal Mountakha mu yàgg fi teewul loolu sëriñ am ni Modou Mbende nax nu kasaalika wax ne ndaw ay xat-xat tey di wax di saaga tarkalla ci sëriñ si ñu ma def ñoom ñoom ñoo métti mhm. alalu jàmbur yi ñuy lekk loolu doo nga moo métti waaye maa ngi jégalu bu baax a baax a baax a a baax mhm. maa ngi jégalu baax <laughs>